salaatu loolee moom mooy màggal gu njëkk ci saay rek gi fi sëñ Béthio newul euh, ñu ko wéet lool euh, wax dëgg yàlla ndax jëmmam ji kenn du ne manqué wuñu ndax jëmmam ji ci waxtu wi ku ne xam na euh, ni mu naan demee waaye nag am nañu xam xam-xam boo xam ne it xam nañ ne mu ngi ci sunu biir ndax jëf ji jëf moom sunu borom bi muy wàccee àddina nit bi dane wàccewuma ma fi jinne ak nit lu dul ñu jaamu jaamu googu nga xam ne moonu fi wàcce ku ne war na cee góorgóorlu ba boo fi jógee nit ñi am lu ñu lay lu fàttalikoo waaye muy fàttaliku yu am sol yoo xam ne oh, buñ nee diw rek ñu ne eskay sëñ Béthio nag yàlla sunu borom miy dimbali Euh, dimbali ne ko ak Serigne Touba ba loolu taxoon suñu borom wàccee fi nit ñi di jaamu yàlla ak def lu baax mu def ko ba tey ak du fay ci yoonu lislaam waaye du fay ci yoonu murid moom ab caddaakoon la muy neex muy naqari day sant moom lañu jàngal ah ñu ngi koy ñaanal nag ci bisu màggal bii rafet nañ njort ci moom ndax daa am ngërëmal Serigne Touba waaw ñu ngi rafet njort lool ñu ngi daan dundee rek lañ koy dundee benn changement amul. ni ko taalibe yi daan wuysee moom la ko ñëpp wuysee waa tey ndax moom ñëpp ko war a delloo njukkal ci màggal gi ndax moom moom la sëñ Saari waxoon ni ko def naa sama màggal muy sax màggal moroom taalibe yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. la ñaan yëg fii ci mbooloo képp moom la ñuy yëgaat bu fi sëñ Mbacke teewee waaw ku xaajaloo it yaa xaajaloo sa xaajaloo ak bopp waaye ñun fa ñu sëñ Saari tegoon ña nga fa. léppay baax léppay tegu ci yoon sëñ sëñ sa njaboot dinañ mel sëñ Béthio njabootam dinañ mel ni mu bëgg te bala mu fay jógee dara xew bi te bi fi jógee ba léegi tamit loolu mën ta ñàkk ndax ca seex yu njëkk yi bi sëñ ta sëñ Touba làqoo yëngu-yëngu amoon na fi sëñ Béthio nag moo noon noonu nag mbiram mën ta mën ta woyof non mënul woyof léppay baax jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yan na leeram yi wasaaroo ci sunu kaw ci barkeb sëriñ Saliou baax bëgg njaboot yor xol bu kenn yorul ci àddina sëñ Béthio jëfam ci doomu aadama amul dendandoo ci àddina sëñ Béthio jëfam ci njabootam amul dendandoo ci àddina sëñ Béthio jëfam ci doomu aadama amul dendandoo ci doomu ci àddina ma daal vraiment daal wax dëgg yàlla daal du ma def lu dul sant Serigne Touba ndaxte moom euh, dem na waaye wàccu fi gàcce. sëñ Béthio def na empreinte te du kenn ku dul Serigne Saliou Mbacké ndax Serigne Saliou moo ko ne woon def naa sa màggal muy sama màggal teg ci ne kon feeg mbir Serigne Touba ngi dox sa mbir day dox kon man aw dara lu may xalaat ci mbiru sëñ Béthio lu dul nañ sax si taalibe nekku taalibe muñalante yërëmante te topp ci ndigali Serigne Mountakha mu sëñ mu sëñ Bassirou mi fi xalif général des ak sunu sang muy sëriñ Cheikh Saliou nañ nekk daal ay taalibe ay moom damay wax ni li mu jàngaloon cantaakon yi li ci njëkk Euh, moy màggalu Touba li ko koy xamal mooy bi mu fi jógeeg euh ci juroomi weer la toll waye li sa bi gatt gatt ba ñepp jappon ne du deme ni ak li ciow yi bari bari bari gis nga ni fi deme li waral lool nak moy seigne Béthio dafa li ko Serigne Saliou jàngaloon te waxoko moy defna sak magal muy sama magal defna sama magal muy sama magal moom moom moom la jëfee jàngal ko képp kuy taalibeem ba xaw looy soññee ak lu ñuy soññ cantaakoon waaye ab màggalu Tuubaa moom bokku ci lu ñuy soññ bi mu fi jógee ah, wala laataa mu fi jóge ndax bis bii tey bu jàllee suba sa la cantaakoon bu ne di waajal ah, màggal gi jëm déwén xam ngi ñu xam loolu moo tax ñu xam ne mbiram ci màggal ak mbiram ci leneen it day gën a yokk rek di wéy kon amuñ ci dara amuñ ci dara jaaxle ndax lu loo xam ne la da ko jàngal mbokku taalibe yi ñi ko sëriñ Touba booleel jàngal leen ko ak def ko seen bopp moo tax lii mën am li mu jàngaloon cantaakoon yi li ci njëkk euh, mooy màggalu Touba li la koy xamal mooy bi mu fi jógeek léegi euh, ci juróomi weer la tool waaye li saa bi gàtt gàtt ba ñépp jàppoon ne du demee nii ak li coow yi bari bari bari gis ngeen fi yi demee li waral lool nak moy sëñ Béthio dafa liko ko Serigne Saliou jàngaloon te waxoko moy defna sak magal muy sama magal, defna sama magal muy sama magal, mom mom mom moom la jëfee jangal ko képp kuy talibim ba xawma loy soñné ak luñuy soñné soññ ñëpp ab màggalu Tuubaa mom bokku ci luñuy soñné soññ nam ko daan defé rek lañ koy defé ndax bernde moom wax nga ko boo ko tuddee rek xel yëpp ci moom lay dem sëñ Saliou nag moo ko ko jàngaloon moo ko ne woon ak cant bernde te bernde ren sa googu moo ko ko sa moom la ko sayit ak njabootam bu ma nee ak njabootam nag mooy ay taalibeem yëpp mooy ñooñam jàngal nañu ko ba ñëpp daanaka xameenu moo tax loo fi gisoon daaw rek na nga jàpp ne incha allah di nga gis ren lu ko raw. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou di sant yàlla sunu borom bi di julli ci sangu-sangu tedd yi mét Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan euh, sunu baay ba Cheikh Béthio Thioune yàlla na leeram wasaare ci sunu kaw ci njabootam gépp ak taalibe yëpp sunu première màggal nag màggal sans Cheikh Béthio ñëpp war naa xam ne du yomb waaye ñun ñun sëriñ bi danoo defal loo xam ni ñun fu nu ne sunu baay ngi ci sunu wet Serigne Saliou ñu bari yaakaaroon na ni lii duñu ko man mais lii du jëfu kenn jëfu Serigne Béthio la Serigne Béthio ci teg loxoom moo tax ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci sangu sang yi di sant sunu baay ba Cheikh Béthio ñoo ngi koy sant Thioune Béthio bu wér ñun ñoo ngi doog a xam ñun kan mooy sunu baay ñu ngi koy soog a xam. sunu danoo jàngal euh, yéwén tabe bernde. ñu lekk mën jox nit ñi ñu naan mën a sañse di gis nga fi góor mu ñaaw gis nga fi jigéen mu ñaaw tabarkalla macha allah xoolal xale yi ñëpp a jongo ma ñun lii nañu sunu baay jàngal ñun xamuñu dara lu dul joxe ñam akub yar ak taalibe jëfe ndigal ak sañse